yu ñagas a ñagas jëme ko ci njiitu Pastef ak nga ak ñi mu àndal mais amul kenn du le leader muy Ousmane ko du ñi muy collaboreel du sax ñoom Ousseynou ak ñooñu nga xam ne ñoom ñoo yore communication bi ku si mas woote fii ne pourquoi ngeen ñu wax ñu nàngam wala pourquoi deful leen ñu nàngam et pourtant Cheikh mën na ko seede oustaz mën na ko seede Seyni mën na ko seede bari na ay leader politique ci réew mi yoo xam ne dinañ ñu demande faveur yu ni mel donc Sénégal damay wax très souvent ni quand les gens n'ont pas accès à ta vie privée ils te créent une vie privée parce que les gens n'ont pas accès à Walfadjri et comment il fonctionne facilement dañuy créer ay accointances ak ay yu kenn xamul yu bëree bëri mais amuñu ci benn kersa amuñu ci benn yaraanga parce que dañu jàpp ne on fait notre travail exactement ni ñu koy defee te am nga ay ambition pour Sénégal su gënee ci réew mi yàlla na la ko yàlla defal mais bis bu Ousmane Sonko nekkoon président wu Sénégal ku xool Moustapha Diop muy wax nga ne kii du Moustapha Diop ma daan gis bi Macky Sall di réew mi nii lañ taxawee woon bu ko keneen dee wut nii la ñuy taxawee parce que ñun xamuñu lu dul loolu c'est dans notre ADN ñun dañoo làggi ci wax dëgg amuñ mënuñu def leneen lu dul loolu réew mi lu fi doxul dañ koy wax oustaz mi ngi koy wax sànq bu ñu delloo woon signal bi fii ma toog il est 18 heures 17 heures 13 à 17 heures et quart bu ñu commencé le même travail la ñuy defaat. encore une fois ñu ngi lay gërëm au nom de la direction générale et au nom de tout le personnel du groupe Walfadjri mën naa ne au nom de tous les sympathisants ak fans groupe bi yëpp ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci tànk yi nga dox pour ñëw fii te amoo ci benn obligation yàlla na la yàlla defal jàmm defal ko réew mi te eh, li nga xam ne moom la faj Walfadjri nekk aussi yàlla taxaw ko ci euh, parce que ku xool les pères et les mères de famille yiy liggéey fii ku nekk xulli sa ay bët di xoole te kenn tegu leen ko ku dul coobare Babacar Diagne dong ak CNRA ak ñi mu àndal war leen envoyé au chômage pendant une semaine te tey jii Cheikh Niass mi toog nee naa ko sànq amoo benn obligation pour téye fi ñëpp su la neexoon ne à partir d'aujourd'hui on ferme la télé on vous êtes tous en chômage te kenn teguñu ko ku dul ñoo xam ne dañoo bëgg ñu def liñ bëgg te ñun mënuñu loolu donc ñi ngi ñaan yàlla delloo si xel yi xel yi ñi jiite réew mi xeli Sénégalais yëpp pour que ñu xam ne réew mi ñun ñoo ko bokk Walfadjri yi wax naa ko démb ci ak njaboot la goo xam ne mooy njabootu presse sénégalaise ku fi nekk amoon ndey joo xam ne moo la doon taxawu ñun ñu amoon ndey joo xam ne mooy Sidi Lamine Niass yàlla jële ko fi ñu ne kon kii ñoom ñooy njirim yi ci njaboot gi lu ñu yëkkati dóor leen ko waaye wax naa ko sànq te dama koy waxaat Sidi Lamine Niass ou pas ñi doon taxaw Walfadjri ils toujours là ils toujours debout et on continuera à faire le même travail incha allahu rabbi ñu ngi lay sant di la gërëm. voilà muy euh, kàddu yu Moustapha Diop le directeur de la radio et de la télévision Walfadjri ñu jox kàddu le président directeur général du groupe Walf euh, Cheikh Niass ngir mu indi ci ay kàddu moom itam jëmale ko ci visite bi nga xam ne moom lañ fi amal euh, njiital Pastef ak ñi mu àndal. ok salaamaaleykum. président Sonko ñoo ngi lay nuyu bu baax di la gërëm di la sant di am mbégte loolu vraiment di la dalalaat euh, ci bureau bi je pense que wax nga ko il y a deux ans euh, ñëwoon nga fi mais pour les mêmes circonstances sama papa nag daa amoon lu mu faral doon wax soo waxu démb. wala sa jëfu démb dafa war a méngoo ak euh, sa waxu tey ak sa jëfu tey je pense que dañuy sant yàlla bu baax a baax ndaxte wal Walfadjri xëy na bi fi Sidy Lamine Niass de doo dañu ragaloon mu am yeneen tournure mais sunu constance je pense que ñoo ngi koy wane ba léegi wax naa wax wax naa ko président Macky Sall ne ko ñun contre nu pouvoir faralu nu opposition on est avec le peuple ni ko Sidy Lamine Niass doon waxee rek contre pouvoir ne veut pas dire forcément contre le pouvoir donc la voix des sans voix boobu noonu la ñu tànn comme suñu ligne rédactionnelle man bi ma ñëwee bees sama mission c'était recomposer la famille Walfadjri ñëpp ñi fi ancien Walfadjri ak ñi fi nekk ñëpp nga xam ne c'est vraiment des gens qui ont travaillé qui ont collaboré avec Sidy Lamine Niass ba tax na du may def lu bëri ay age ay réunion parce que xam naa ne que ñëpp on a la formation et l'école Sidy Lamine Niass donc tey mun naa ni daanaka quatre-vingt-dix pour cent wala lu ko ëpp du personnel de Walfadjri liggéey neen jëflante neen ak Sidy Lamine cent pour cent des responsables muy Moustapha ñoom Oustaz Assane seeni Diop cent pour cent des responsables à commencer chef de desk ba ci kaw les directeurs euh, am nañ fi lu mu bon bon dix à quinze ans d'ancienneté donc pour vous dire que c'est pas tey benn personnel u Cheikh Niass équipe u Cheikh Niass moo ñëw di def lu ko neex wala kii ñun ça c'est Walf Sidy Lamine Niass su fi nekkoon tamit euh, li fi li am nii doon na am d'ailleurs Macky euh, reporter bi ko couvrir mooy fa depuis xaw ma ñaata at depuis une dizaine d'années on le connaît donc y pas c'est pas tey nous sommes pas le perdreau de l'année maanaam ay jeunes yu ñëw nii euh, xamuñu liggéey bi donc li ñu def yëpp Euh, on le fait avec déontologie et avec expérience semaine bi passée euh, waa Benno ils ont payé ñu couvrir leen seen euh, activité parce que encore une fois on est une entreprise commerciale de droit sénégalais chaque fin du mois ñoom Moustapha ñoom ñëpp ñu ngi xaar ma fay leen salaire donc euh, c'est tout à fait normal tey muy état muy feneen ku ma proposer euh, un montant ñu liggéey ak ñoom bi nu proposer waa PASTEF ne pare pour ñu. Euh, couvrir seen élément bi on s'est dit il y aucun problème donc euh, Babacar Diagne bi mu ma wooyee ne ma euh, arrêtel signal bi je lui ai dit lii c'est commercial mu ne ma si tu coupes pas je coupe ma ne ko jëlal sa responsabilité parce que man damay liggéey je ne peux pas couper te lii ni pour man c'est une information parce qu'il y a deux choses ah l'information et il la communication la communication elle est payante mais soo demee ba ñun on était derrière les policiers donc euh, joxuñu xale yi euh, allumette joxuñu leen pneu on n'a rien fait on vient on constate man j'ai fait vingt ans en France BFM TV daanaka loolu kese laa doon seetaan attentat Charlie bi ñu doon def assaut euh, hyper cachère yooyu yëpp journalistes yi venaient en direct ñuy wone alors que amul lu gën a dangereux loolu waaw donc euh, récemment avec gilets jaunes yi Russie donc pour vous dire que tey actuellement avec la concurrence médiatique soo soo télévision yi mënuñu tourner defati la politique de l'autruche parce que y a la presse en ligne tey daanak euh, marqué soo demee si presse en ligne tu tu avais tout toutes les images même la presse euh, traditionnelle sax amoon na ñu ko doon wane te dafa mel ni Walfadjri rek la ñuy euh, la ñuy discriminer parce que en réalité c'est ça c'est Walfadjri qui se dérange donc en tout cas vraiment di leen remercier bu baax a baax te di leen wax ne que ñun on va continuer sunu sunu liggéey une semaine nag c'est une volonté d'asphyxie d'asphyxie financière parce que mois de février damay ne de presse amul benn patron bu de février parce que 28 jours moom janvier moom neexoon na trop janvier moom tu sens vraiment que tu as le temps de recouvrer et tout mois de février moom man chaque jour maa ngi xool ban date la parce que maa <laughs> a kii rek <laughs> <laughs> donc vraiment euh, sept jours c'est trop mais dañuy sant yàlla xam ne que lii c'est le prix à Mais on va continuer notre travail et on est prêt à travailler avec tout le monde on est des Sénégalais fii nii c'est pas une famille euh, Sidy Lamine Niass ñoo fi nekk wala daayira wala leneen loolu waxoon naa ko sax président de la République ma kii nii directeur de la rajo euh, et de la télé Diop la sant kii Diouf kii euh, Faye et ainsi de suite donc c'est des Sénégalais dox daje la ñun donc c'est ça aujourd'hui c'est une entreprise sénégalaise donc suñu suñu tëjee tamit c'est deux cents pères de famille qu'on met au chômage donc euh, encore une fois ak président euh, di la sant bu baax a baax te di leen wax ne que ñun on est là pour travailler avec tout le monde avec tous les Sénégalais te wax dëgg fa yàlla euh, on est vraiment sensible à cet acte ñëw fii nii bàyyi sa yite bàyyi sa lépp nga ñëw soutenir nous on est vraiment sensible et on vous remercie jërëjëf di directeur général bu groupe Walf euh, moo doon yëkkati ay kàddu noonu di wax jëmale ko ci li nga xam ne rek moom la fi nemmeeku muy visite boo xam ne njiital Pastef amal na ko fi di Ousmane Sonko ak ñi nga xam ne ñoom laa àndal sànq maa ngi koy lim sax ci délégation bi Babacar Ndiaye lañ ci sote woon euh, Abbas Fall Marie Rose Faye Ousseynou